benn nit boo xam ne peut-être euh, en fait Covid bi du Covid bi moo ko yóbbu mooy euh, semaine bi passée vraiment am na lu tiis lu xew ki suñu buntu fii ñi nekk. Mm-hmm. Euh, pour ne pas préciser benn góor gu tuddoon benn waay ju tuddoon Abdoulaye Ndiaye vraiment mu mu mu génn àddina ci ci vraiment lu difficile. ñu koy ñaanal yàlla mu xaree ko àjjana ñaanal yàlla mu mu yërëm ko. ci contexte yu mel ni c'est très difficile di di ñaan aussi yàlla mu mu jéggal ñëpp jéggal aussi euh, ci situation yu mel nii lépp li nga xam ne peut-être interprétation wala dara loo xam ne peut-être day day du rafet yàlla jéggal ñëpp parce que fu mu nekk nii je pense que loolu moo am solo et vraiment ñu koy ñaanal parce que euh, drame la difficile la mais mu ñu toog fii aussi te duñ ko duñ ko jaale njabootam di ko jaale yaayam di ko jaale